loolu laa gëm. alors ma malade voilà. c'est que en fait euh, à mon avis nous sommes quelque part un peu ingrats parce que on est en train de faire plus ou moins benn on est en train de dire indirectement il faut qu'on se débarrasse de Aliou sans le dire directement. presque loolu la ñuy wax. bu ñu doon ñan ñoo koy wax. finalement c'est toi qui le dis. oui non bu ñu doon résumer c'est que le plateau. non vous le dites de manière métaphorique. waaw mais maanaam est-ce que ñun ñoo ko wax wala ñenn ci non je veux dire que bu ñu doon defoon vote. waaw fii tey implicitement on entend bien que Aliou doit rendre le tablier. mais non il faut pas. loolu la Gajaga wax ah Fada nga wax man non non non ga Gajaga loolu la wax. non xaaral Gajaga loolu la wax. qualifié wul. voilà dafa ne dafa ne bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu doon il a eu les honneurs et cetera et cetera yow nga ne yow nga ne bu gagné aussi na dem non dama ne bu atteindreul objectif am na dem ah, mais léegi bu ah, ànd bon malal non non malal malal le mot dem non non malal malal malal malal non xam nga boo nee on est ingrat non man fu ma d'accord xam nga bu ma ne objectif bi nga la jox nga nga atteindre ko quoi coupe d'Afrique ñu joxaat la objectif qualification. atteindre ko ñu dàq la oui c'est une condition que je mets. on xam nga lu tax football dafa ànd ak ingrat. waaw d'accord non ingrat oui football li ba fu tuddee. oui Ronaldinho Ronaldo El Fenomeno moo ko tuddee El Gourdo. d'accord ki ko tuddee woon ku yéeme ki. moo ko tuddee pata bi. football résultat <laughs> non loolu. El Gordo mhm. créé wu ko. El Gordo kooku du nit. Messi mii lañ fi doon xas barki Dembo Ndiaye kooku li mu def ci football dafa am. oui d'accord maanaam la football est même moo ingrat. par nature Yaya Touré nee na. Mhm. ma dégg gis nga tubaab bi xamul performance su démb. li ma taf nii mu dugg nii bi may fii génn laa ko fàtte pour suba pour Aliou moom li ma ko bëggal sax bi laay yéene la. parce que Aliou lim ñu defal mooy li ma wax amul. mais malal. oui une heure du matin Aliou y' a problème. waaw vas-y man li ma gëm mooy. affaire bi ay affaire bi courbe la. et puis c'est Sadio doit être ingrat aussi waaw ah. li ma li ma gëm mooy. ñun ñëpp muy supporter di ñu nekk fédération ñu nekk ci sport bi globalement on peine dañu am problème mu détaché wu. ci Sadio Mané ci Kalidou Koulibaly ci Gana Diop et cetera. on a cité Gana Gueye un certain nombre de et cetera ah même Edouard Mendy alors que bu fekkee da nga bëgg da nga bëgg évoluer la question de la jeunesse li Bouba évoqué dafa am solo c'est-à-dire ndaw dangay nekk ndaw dañu mel ni ñun ni ñu mel ak jour yooyu noonu la. xëy na waa PDS mel ak Ablaye Wade c'est-à-dire mooy ci rek ne duñ duñ ko bàyyi. Ah, c'est-à-dire entraîneur bi. oui on se renou xam nga pour se renouveler y a prix à payer et ci prix à payer bi ay défaite ci la bokk. Mm. parce que loolu ci ci renouvellement reconstruction. oui ci construction ci construction. reconstruction équipe boo koy reconstruire da ngay nangu nii am na benn phase boo xamante ne. Mm. da ngay nangu sax perte. da nangu sax ñu éliminer la ko. da ngay nangu sax ñu éliminer la éliminatoire coupe du monde beneen affaire mooy bu ñu tollee le football aussi c'est un tout pour man matchu éliminatoire coupe du monde nañu mayee bi yi stade bi fees jour yi ñu galvaniser leen ñu yëngu parce que démb la démb la match c'était comme comme match amical ah comme match entraînement il y avait pas d'angle. xam nga loolu la moo koy posé c'est-à-dire que stade bi dafa excentré wu. du centre-ville benn il y a un problème d'accessibilité parce que boo xoolee pratiquement ceux qui quittent Dakar pour aller par exemple. mais kon Égypte c'était pas le cas maanaam xoolal les gens souffrent avant d'arriver au stade. la plupart du temps suñu si bëri sax dañuy dañuy dañuy tardé. dañuy tardé parce que parce que boo xoolee pour euh, un stade de cinquante mille places je sais pas trop nga bëgg fa ñëpp bëgg a jaar ci benn ruq pour mën a. mais mais Cheikh Tidiane weesu loolu weesu loolu la mais man la li mu wax tamit. mais li ma la wax dëgg la de gis nga gis nga Cheikh Tidiane dafa weesu sax loolu. bu ma may bi may bi mënul nekk. bu ma dóor am na lu mu wax keroog mais tey match bi jour ouvrable la yeneen télé yëpp. oui jour ouvrable ñu jaay ko am na ay fan. Badara match bi aussi faut pas oublier que jour ouvrable la euh, jeudi. non match bi jour ouvrable la je suis entièrement d'accord mais dafa. donc bi kese. même dans le cadre de la com. mais très en fait dafa mel ni. mais les gens Cheikh Tidiane leen ma la. Cheikh nga en fait question cest ni ñuy waxee ni ñun. Mhm. miin nañu coupe du monde miin nañu coupe d'Afrique mënatuñ d'accord Sénégal coupe du monde am bokk ci. Mhm. coupe d'Afrique am bokk ci. Mhm. mais loolu dans la conscience des Sénégalais dañ ko ci war a def. mu ngi déjà dans la conscience dans la conscience mais il faut l'accompagner da nga koy accompagner avec une communication. c'est ça nit ñi xam ni il y a un match et yi aussi fii ba fi ñu jëm chaque jour nañ leen di xas comme ni ñu xasee woon waa Côte d'Ivoire waa Côte d'Ivoire bi ñu leen xasee lañ jël coupe. Mm-hmm. nañ leen xas nañ leen ne écoute wu dafoo fi dara xamoo dara. pour ñu yow nana nii nana naa ñi ngay jël piston yéen techniciens yi ngeen wax kii du piston defal kii defal il faut que les Sénégalais aussi commencent à se mobiliser pour dire écoute on était content delloowaat leen ñu mbégte bi ngeen amoon habitude di ñu jox la Côte d'Ivoire coupe bii mu jël du forcément mën footballant ah. mhm. c'est simplement qu'il a été galvanisé qui sait que les joueurs sont touchés dans son orgueil exactement nous on caresse trop nos joueurs dans le sens du poil et jusque là on n'arrive pas à mettre aux oubliettes la victoire de li ñu jël Coupe d'Afrique pour man on doit aller dans ce sens la uh-huh. et que période transitoire également lañ nekk est-ce que aussi équipe technique bi est-ce que ñenn ñi nekkuñu dans la psychose de léegi ma gé léegi ñu génne ma fii il y a un nouveau est-ce que le climat quel est le climat actuellement mm-hmm. est-ce que lan mooy mm-hmm. impact politique wu mm-hmm. lan mooy impact impact politique wu transition bi ñu am alternance bi ci ci affaire dama bëggoon dama bëggoon appuyer foofu rek vite fait. Uh-huh. pour dire que xam nga c'est tout na ensemble. tey jii nii les nouveau la sénégal xamuñu leen. attends dama xam nga responsabilité fédération mooy jaay équipe rendre l'équipe sexy. waay suñu fu joueur yu bees yi ah ku leen xam ñu bees ñi man xamu ne. mais on ne les connaît pas tu sais fenn laa amee respect et il a vu il avait vu juste yàlla na ko yàlla yërëm Bruno Metsu et la génération deux 2002 mais on les connaissait on les pratiquait une équipe il faut la rendre mm-hmm. attractive il faut la mu mu jege mm-hmm. équipe dafa war a jege peuple bi mm-hmm. booy sénégalais yi yaa ngi dem yaa ngi dem ci benn dëkk boo xam ne <laughs> taux de d'analphabétisme euh, d'analphabétisme bi ñaata la. bon les gens c'est nga am ay joueurs yoo xam ne. 70 pour cent. 50 en 51 en fait xaw na wàcc quoi. soo ñu si xam boo peut pour cent joueurs yi wala 70 pour cent joueurs yi boo leen nee na def du ñu xam nu lay topp <laughs> c'est des gens qu'on ne pas qui viennent. wax yàgg naa ko fi wax dem dal sali fële wala ñu dem jam ñaajo stade baa ngi foofu wàcc euh, kii euh, nu mu aéroport aéroport mhm. dem regroupement pare jëlaat seen avion bi ci on ne les connaît pas c'est dire que une équipe pour que engouement bi am mm. pour que public bi am mais il faut que ñu Mbappé français yi dañ ko xam Pavard français yi dañ ko xam ak keneen keneen il y a un réel problème en général au Sénégal de communication mais fédération bi seen moom laa lay wax ni tey jii nii soo amee coach boo xam ne c'est-à-dire que même pour mu wax d'une façon décon décontractée ki nga xam ne nit la rek comme dafa am solo. Mhm. joueurs yi il faut que ñuy on organise rien du tout joueurs yi xam nga lu ñu leen def ñu ñëw jëf ay contrat de kii de de de publicité. Mhm. ñu fay leen xaalis bu weex ñu dem tëdd fële chaque jour ñu ñëw ñu jël seen image teg ko. kese mais c'est pas des joueurs qui son proches du peuple nan waxante dëgg et dañ leen war a sucer les les joueurs de l'équipe nationale yu Sénégal il faut lii ñuy parce émission bi dañ koy seetaan wóor a mën ñu koy seetaan buñ ñu fontoo c'est pas non defal ndax am na ci ñoo xam ne ñu si gën a bëri ñu dem ci équipe dëkk yu ñu jóge amuñu fa place ñu ne nii ah, Sénégal j'aimerais bien jouer pour mon pays jouer pour son pays c'est pas que sol maillot bi nekk si terrain bi daw c'est c'est non non non il oui. faut être sénégalais. oui c'est ça quand c'est-à-dire que faites vos vacances ici. Mm. soyez proche du peuple. des sénégalais ñu xam leen di saafonte loolu moo tax ñoom El Hadj fu ñu génn gars yi leen. mais man jour yu sax xamuñu leen. yéen à part yéen xamuñu leen parce que on ne les vend pas. oui équipe nationale bu original sax mënoo ko am. dans un pays comme ça. loo loolu moom fédération mais moom laa lay wax ni dama ne la équipe nationale laa wax. bu amul maillot original boo boo xam ne boo demee fii jot ko mu a un prix abordable mais loolu insult la. Mm-hmm. ak fu football bi toll. ak fu football bi toll ñun ñii ñëpp koo fi gis nu muy sol. fakes ay maillot non defal ndànk. ay fake Real déedéet. Ah. Real. attends nous on porte le maillot du Sénégal que bu engouement amee ambiance. ñu sotti mais yan yan équipe yan maillot la ñuy sol ay Real. ki naan Paris laa àndal. badara dóor parem bu baax ah. Abba Dóor Marseille bu baax. keneen ak keneen DJ Boubou su Dóor pare bu dëgg la léegi suñu foot suñu joueurs yi dañu am pour fédération bi dafa am pour. jël joueurs yi ñu nekk ay joueurs Sénégal. Mm-hmm. et Côte d'Ivoire ay joueurs ivoiriens la ñu et da ngay gis li ma la doon wax noonu orgueil boobu ñu leen touché ba ñu kii parce que boo fa nekkoon dangay ngay sentir que ni ces gens là ils sont du truc on a des joueurs bijoutage xaw ma lañ koy wax la ñuy gis ci joueurs yi bu ñëwee ñu rek si seen hôtel bi ne këjëk këjëk këjëk ñu wane affaire mu jeex on ne les connaît pas on connaissait El Hadj Diouf El Hadj Diouf <laughs> Fadiga euh, euh, Moussa Ndiaye Henri Camara Aliou Cissé fu ñu génnoon ñu xam ni ñii c'est des joueurs sénégalais mais mais booba lu ci gën a sax mooy nga tañeer bi dañ ko bunkeriser. mais moom mais non ba kenn amul accès ci équipe nationale loolu tax anguma amatu ci. loolu laa lay wax xoola non non. anguma amatu ci loolu loolu responsabilité mooy fi non Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane loolu responsabilité. président dañ koy interpeller ah, ah président fédération bi ak coach bi parce que la personnalité. de de de de de de kii. Aliou de Aliou Cissé même sur l'équipe. mm daf leen di bunkeriser. j'en sais quelque chose. il faut que ces joueurs là ñu comprendre que ni. ils respirent. non c'est ay sénégalais lañu c'est pas que revêtir maillot Sénégal sénégale nga dangay ngay défendre suñu couleur il que ñuy ñu xam leen tàggat leen kuy dem fenn kuy bëre ci koñ. sa mhm. waa écurie dañ lay tàggat. nga dem malal boo doon jouer fenn waa géejawaay dañ lay tàggat. joueurs yi anuñ kenn tàggatu leen doo leen gis. joueur Sénégal doo leen gis xamuñu leen mais loolu c'est pas normal ngeen bëgg engouement am ci. carrément mais ma jàpp. Sadio Mané xaaral rek Sadio Mané. Sadio Mané il a une lourde responsabilité. Mm-hmm. dix ans ngi nii nekkul Sénégal mu nekk ki joueur sénégalais bi de bi gën a mag de tous les temps il a une responsabilité de se rapprocher même des Sénégalais d'être plus accessible mais kenn xamatu leen kenn gisatu leen. oui c'est ça ni ñu waxante dëgg ñoom ñëpp y compris Sadio ah non ça wax mais non mais non non mais dama ne dama ne. gis nga mais leader El foofu lay daanale El Hadj Diouf El Hadj Diouf c'était le ah. ah, leader technique de l'équipe c'était pas le capitaine ah, mais dañ ko rendre hommage ci loolu il est tellement ba léegi moo tax ba léegi boo seetloo El Hadj Diouf même nii football bu génnee moo leen ëpp succès Why? Pourquoi? parce que il est proche du peuple les brésiliens ils sont proches de leur de leur kii li ñuy génne seen hôtel yooyu dugg ci sénégalais yi xam ni suñu couleur la ñuy défendre dañ leen di jox suñu ay prime ñu jege sénégalais yi gars yi bëgg leen bu match amee ñu rey seen bopp booy booy bu ñu ñëwee bees